asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi vidéo tey bi moo nekkoon nan ngay activer appel soo ko bëggee activer da ngay télécharger whatsapp dernière mise à jour bi bu bêta bi soo ko bëggee télécharger dama ne nga nga recherche quatorze point deux point seize nga recherche nga jël bu affiché lii nga jël deuxième bi nga xaar mu ubbeeku ubbeekoo moo nekk ni trente méga la nga download APK eh, APK download APK akhar tout mu commencé télécharger nga xam nga ka bëgg télécharger okay. ben berhaberliyiz. Artık tümün ne tele sardım ben bu. Bana ekne ise kavuşu tele sardım. Tele sardı bana ko. तुले चार सौ बना हो करे बोने एक téléchargé na ko pare moo ne comme whatsapp bi ngay gis 38 ba ba installé ko bu ñëwee soo si basee si kawam ba si installé rek moom mise à jour soo ko mise à jour ba ki ngay wàcc boo basee installé mu boo ko mise à mu am ko loolu mu am tamit mu installé comme mi nga installé ba I'm working hard. Okay. So the guys king ayo. Bobo say bodo apple king apple bakal apple video. So bobo apple video. Telepon bobo. Viewing of him turning. Morning happy day. to do. Thanks, Nabia. I jàppeel vidéo bi lii moo nekkoon leçon tey bi di sàkk si nga abonné seen chaîne YouTube bi wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi